Come on. bëgg xale bu communiqué rek ñëpp nangu te tey ku dégg Bébé Diène xam na ne vraiment mi ngi màgg ci communication point bi mu fi tuuti rek mooy le euh, problème maire Bamba Fall euh, bu fekkee ne kilifa nga bu fekkee ne yow kilifa gox ba nga dafa am noo xam ne da nga ko war a waxee Bamba Fall tey bu soxla waan écrit suba jun war na mën a jaar si man jaar si man xam ne comme quoi ne dañuy dañuy liggéey Médina ñëw leen ngeen jàpp si par respect su boobaa dinañ ko def mais mënoo doon maire di menacer population médinois Bamba Fall waruñu menacé. daf leen menacé war si dafa mën li mu def a la. li mu def affaire menacé bu bu mbëri ñëw du ma leen jàppale population bi ñoo ko fi teg qu'il nous respecte tey bu ñu ko fi falee ñun ñoo fal Bamba Fall kon bu amee lu muy wax na ñëw si ñun ñun lu ñu am lu wax dañ koy bind lettre kon moom bu amee lu muy wax na ñëw si man man maay kilifa écurie Soumbédioune jun képp kuy takk Medina ngemb man maay si kilifa bu Medina amee xewle war a liggéey na jaar ci man xale yëpp takk ba dëgër mais taxaw di def ay chantage un maire def loolu na jël exemple yeneen maire yi mais mbëri tamit est-ce que père waruñu dem jàpp ci liggéey non déglu ma wax nañu jàpp ci liggéeyam mbëri yàgg nañ jàpp ci liggéey Bamba Fall est-ce que yaa ngi may dégg tey jii warul mu ne warul mu ne xaw mais man dama ne man lan moo dal Bamba Fall lan moo ko dal ba mu génn di wax yenn sorti yi jëmale ko ci mbëri yi pourtant as ASC yi ñu ngi fi tudd leen jaraaf bërgi dem école jaraaf mi ngi tudd leen pourquoi mu indexé mbër yi xaalis bi muy jox mbër yi ñun sunu xaalis la vrai ou c'est l'argent du contribuable kon xaalis boobu bu ko joxee ñu ko war a jox bu ko joxul mu xam ne moom la. mais bëgg-bëgg la ba tax mu mën a wax loolu lan la. moom liggéey Medina la set setal. waaw mais set setal mais ba ma mais set setal set doo woon nit ñi par respect ñun ay kilifa la nañu jox cër bu ñëwee jàppale na dañuy dem bu ñu jàppalewul dañuy dem fii àdduna yàlla moo ko moom. aduna yàlla moo ko moom te ay langage am na moytu di menacer nit ñi.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 sama grand Momzo sa Suisse maa leen di nuyu bu baax. ak Kosi ñoom mbay Mbaye Zeke maa koy nuyu bu baax. yaa eh, euh, maa ngi nuyu tamit sëñ Abdoulaye sama benn sëriñ taalibe sëñ Sidi alxuraan la muy Pikine. waaw maa koy nuyu bu baax a baax. yaa question rek mooy Bébé Diène saa bu génnee gis nañu xale yi Médina dañ koy toppee. Mhm. ba koroog ba nga jugee aéroport gis nañ tamit mbooloo bi la topp. Mhm. ba am coow la amoon tuuti sa diggante ak takk der yi. Mhm. message ngay lancé ci loolu. non man nekkul man kese. tey su ma jugee.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 Pimpi Boss mooy Passe Courant ñoom Gasson ak sama grand Zilo Zilo day jël xaalisam xoolal te moom bi saa du ko gis Zilo sama benn grand day jël alalam di fay ay 500000 sëriñ billaay wallaay te xoolal du si wax dara billaay wallaay waaw nañu bàyyi la 24 maa jox sama papa mu syndicat bi waaw waru wax sa mais waaw